maaleykum maa ngi nuyu mbokki jullit yi di nuyu waa ñaani yëpp maa ngi tudd Tidiane Sewaan dëkk dëkk bu naan Mereto nekk ci diggu ñaani di président commission culturel bu conseil départemental bu Koumpentoum jiite comité pilotage bi doon organisé pencum ñaani festival pencum ñaani ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi euh, ñu ngi sant waa ñaani yëpp di sant aussi ñëpp ku ñu jàppale ci liggéey bi ñu doon def muy euh, festival pencum ñaani pencum ñaani nag dañu ñëw tey wax leen lan mooy ñaani lii lan mooy ñaani ñaani dafa boole ñaari xeet yoo xam ne ne ñoo fi toogoon yore nyani muy peli ak sosé waye ñom ñoy ñaari xéet yoy ñoo fi ñëk dëkk tekki wu yenen xéet fekk ci nañ leen fi muy tukulóor yi muy olof yi muy ak yeneen xéet té te daf doon réew mo xamné réewum làqoo xaay la woon parce que da ngeen daan xam buur yi suñ nekkaan ak beneen xeet boo xam ne ay guerrier lañ guerrier yooyu am doole dañuy xaw a fiir ñooña ba ñagas-ñagas day am seen diggante ba ñooña dañuy obligé dawee ca gox yooya ñëw làqu si ñaani moo taxoon ñaani doole ji bari te ñaani ku fi ñëwaan dañ lay làqu euh, ma commencé ci li wax leen lan mooy soose yi soose yi ñoo fi falu ñoo fi njëkk a nekk bu ñoo fi nekk bu ñoo fi falu mais tekkiwul nag amoon na ay tata tata bu euh, njàmbur amoon na fofu bour yi fa lañ nekkoon tata bu ndugu sin am na ak kusalang mooy tata bu tukkuloo pël yi yi yi amoon nañ tata kusalang muy dëkk bu yàgg olof yi am tata fu ñuy wax karanta ba ci biir gambi la nekk ma leen di bëgg a xamal nag <clears throat> soose yi bi ñu jógee Mandé Camaracounda yi dañu nekkoon biir Mandé di nekk guerrier yu mag xeex bu sottiaan biir Mandé Camaracounda yi ci sóob seen loxo waaye ñoom duñu falu foofu biñ démé ne ba ñu bugg nguur nguur di leen xéñ ñu gàddaaye fofu jaar biir Guinée Conakry génne Guinée Guinée Bissau dugg bir Ngaabu dugg Casamance ñew Sédhiou mais li ñuy wër yëpp li ñu do wër gisaguñ ko parce que ñu ngi wut fu ñu réñé bi ñu jéggee ne Sédhiou dañu dugg bir gambi ñew ci bir gambi jàll fula bi gambi bi ñew sañ ci dëkk bu ñaan naan ñi xam na du foofu mais ñoom dañu am ay xam-xam di wër ñu jógee foofu ñëw nañ Kumbiña ñëw Kuwo ñëw sanc Koungheul Socé bi ñu ñëwee nag Koungheul Socé nag famille bu yaatu la parce que dañu famille bi dafay mel ni ay doom baay la ñii ñii la ñii euh, Mansali Kounda Mansali yi nag ñoo jógee Koungheul Socé ñëw sanc Koupentoum Socé Koupentoum tuddul Koupentoum Koubatou la ku batu mooy nañ xaar mbir mi fii ñu jëwee foofu rek xam na ne mbir maa ngi fii soreetul leen toog biñ toogee Koupentoum soose nag diir bu xaw a yàgg ah ku ñuy wax maar Camara nekkoon ab saseer muy rëbb niñ ko mën a xamee ci olof rëbb bu doon rëbb nag ba dem fi nekk njaambur tey ni mu tëddee ci àll bi di nelaw xaj yi ne mbaxanaam buur a ngi ni ci kaw mu tiit nelaw mu jóg au lieu mu déglu xaj yi bay xaj yi wax ba pare moom yaakaar na rek fi ne nii comme que ne nañ baxanam buur a ngi fii bu fi sañcee dana nekk buur ci la topp di gor garab yi di tëral ba àgg ku benn kuratu soose mu ne moom day naweti foofu mu dem sañ ci njaamu waaye def na moom maar faluwul parce que sanc na njaambur ba am téeméeri at buur soog faa soqe njaambur gi njaambur nag am na ñeent fukki buur ak ñeent ci la Mansa Kilintaan nag fekk juddu mooy buur bi gën a ràññeeku ci ñaan yi muy buur bi gënoon a raglu nag buur bi gën a mën a xeex Mansa Kilintaan niñ leen ko mën a waxee moom ci côté ndeyam ay roi lañ ci côté baayam ay roi lañ ndeyam mu ngi bokk ci royaume fu wulli ñëw sëy si ci royaume ñaani mais xam nga buur dafa fiir bu guñ nag parce que baayam moo tuddoon roi Saara roi Saara xamaloon nañ ko ne yaay jur buur bi gën a siiw ci seen xeet bi buur bi gën a ñemee bi gën a mën a xeex yaa koy jur mu fiir nag ndaw sele bu mu ko am ndaw si nga xam wulli la jóge bu mu ko am mais mu joxaaye ko ak ay sax joxatul ko aye waaye ni yàlla def xam nga buur yi dañ daan dalal léeg-léeg sirif dañ fay jaar sëriñ dañ fay jaar benn sirif jaar fa ne ko ah yow day danga nga jur doom bi nga xam buur bi nga xam ne lu mooy gën a siiw ci seen buur ci la yaayu may sa kimintang baay bi guddi sedd mu dem gis sirif bi nga man de sama jëkkër dama joxatu sax ay mun ne ko yow nag fitu njàmbaar bi may gis ci sa yaram yi est du yaay jur buur bi nga xam ne moo gën a siiw ci ñoom mu ne ko waaye dinaa la defal loo xam ne nga toggal ko reer def ko ci mu reer dana la jox ay sirif bi defal ko soxna si dem def reer bu neex jox ko si góor bi buur bi reeree pare ne ko ah yow tey da nga ma neexal wala da ngaa bëgg a mu ne ko déet man bëgguma aye lu neex dong laa waaye bëgguma aye aye kay heure boo ko joxee rek baax na boo ma ko joxul man lu la neex naa yëg soxla kon de naa jox aye ci aye mu joxoon soxna si la soxna si këf biir muy may sa kimintam moo tax ci or ci soose ñu naan ko suuti kiling benn guddi ci la soso may sa kimin tàng bi mu juddoo nag fekk na fa ay doom baayam juróom benni doomi baayam juróom benni yooyu nag beneen sirif jaaraat na fa ne ko see yow de sa doom yi may gis ni buur bi gën a xereñ ci seen buur yi fi lay fekk ci ñoom waaye nag naa la defal benn téere téere bi dangay rey mën na xar am xaaf soo reyee xar nga daldi di bënn bopp bi dugal téere bi ci biir bopp bi ñu togg ci yàpp ñu toggale ko bopp bi def ko ay cere nga jox leen ñu lekk ku lekk bopp bi rek bu leen ko wax nag parce que bopp bi da nga koy suul ci biir cere ji koo ko wax ci ñoom rek du fal waaye dama bëgg nag soo ko suulee bu ko kenn xam ci ñoom ku ko lekk nag koo koy nekk buur bi koor gi dal di def noonu togg cere ji toog bi timis gi maase ba ñi bëgg a jëmal waxtu reer mais ki mintaan da daan faral di génn diggante timis ak reer di doxantu tuuti bi bàyyi ji bàyyi xel ba mu génn rek parce que moom bëggul kooku parce que moom ñaari tànk la tànk roi roi wulli ak roi ñaani bàyyi ji ñaani la yaay ji wulli la mu ne ana may sa ki ñu ne génn na mu ne xale yi kaay daal di del cere ji tàcc war na gum maanaam ne kaay leen ñu lekk lekk juróom-benni mag yi eh, ci mintaar yi ñëw di lekk daa def yaay ji ki mintaar noonu rek mu agsi mu ne ko ah sa gaa yaa ngi lekk ci sa wanagu papa de yàpp demal mu daw ñëw ñoo fekk mag yaa ngi lekk mu dugal loxo bi ci biir génne bopp xar mi daal di daw dem wanagu yaayam rien que bañ na di ko fa lekk keneen ci ñoom parce que moom xam-xam la am bañ na ko fa téye di lek keneen ñaan ko ci lek ci mën na nek sax ñu wérante kan mo ci nek roi bi mu da wona ko yaam lek bop ba mu jeex di defé nak gurki guur gi di len testé kenn ku ne mu Bim lo lek ci yàpp nga wax mu ne la demal bimu ak ci kimintan ne ko yow loo lekkoon ci yàpp mu ne ko dama sama alal la demoon jëli dama ñew rek fekk sama sama bop xar mi mom la soxlon mom la bu sama wana ko yaay lek na ma gor gi dal di sëgg bi jël na affaire Manchette Kimintana <coughs> bi mu demee ba nga xam ne ne mat na waxambaane mu dal di moom it rëbb la parce que ñoom soose yooyu ay euh, foo gis euh, roi bu mag ñaari rëbb lay doon parce que Sunjata mi ñuy wax sax Sunjata Keita nekk na rëbb kon ñoom dañu fekk rëbb moom mu nekk di rëbb ba mu dem àll bi ñuy wax ndungu sinte bu tëdd ci doon garab yi di nelaw mu yàndoon ak gétt xaj la daan yor xaj bu bari benn xaj bu ndaw bi ne gis ngeen li ma gisam beneen xaj bi ne ko noppil ki ñu ànd ak nelaw eh, xaj jigéen ne nelaw na bàyyil xale bi mu wax mu ne dëkk bii dee dëkk buur la te dëkk la boo xam benn xare mënu ko toj te ku fi ñëw xare nga waaw beneen xaj bu mag bi ne ko waaw li nga gis am na lu des de lan mooy toj dëkk mu ne ko dëkk bi ñaari mbir rekk koy toj nit ñu xeex fi ci mbiri xaj walla ñu xeex ci mbiri jigéen waaye du loolu leen du toj dëkk ki mi nag déglu xaj yi bañ paree wax ko sarax yeeg lu ñuy def yëpp mu daal di jóg bi mu jógee nag mu topp moom it comme na ma la waxee woon na maar Camara doon def bi ñibbisi Koumbéntoum soose moom noonu la def bi si Njàmbur bi mu ñëwee ba njaambur mu ne bayam man kat gis naa fi benn àll ci biir suñ penku bi fii àll boobu dama fa bëggoon nawet bàyyi ñu ne ko waaw mu ne ko waaye foofu de ci wulli la bokk sa nijaay yi ñoo ko moom waaye mën nga dem àbb leen ko waaw mu daal daal takk fasam daal dem ci nijaay muy ruwaa bu wulli daal di dem seeworo fekk ko fa mu ne ko nijaay dama ñëw dama gis fii ci seen àll bi benn place boo xam ne ma fa bëgg ñëw di fa nawee di fa liggéey mu ne ko def nga lu baax mu ne waaye dañuy siñe contrat nag soo fay nawet danga may fay imp ñu juboo ci imp bi bi ki jógee bëgg a dem benn góor ak wuudee mu ngi wuudee mu ngi fa woon mu ne ko a ah, yow xam nga ki nga abal sa àll bi mu ne ko déedéet mu ne ko kii buur la kii bokk abale fii xeex ngeen di mujjee roi bi ree ne ko yow boroom sagar yi ki yore groupe bu xaj <laughs> mën na maa indil problème waa ji ne ko waa baax na ñu ko yow xiif dal di dindi benn gàtt jox ko ne ko demal lekk waa ji dal di jóg ne ko baax na li ma la wax li da ko takk rek ki min dang dal di jóg ñibbi ba mu ñibbee nawet jot mu liggéey nawet wàcc ku xam mbay ku njëkk booba daal bu nawet wàccee duñ naan fay xaalis dem dugub la ñuy fay mu jël ay jaamam yéen leen ay sendel sendel yi dugub sendel nag dañ ko daan ràbb dañ ko daan ràbbee mooy ay bantu sexew mu yéen leen ay sendel yi dugub kenn jaam yóbbu loola moo daan lem ah góor gi wóolu ko buur bi wóolu ko daal di nawet ñëw mu abal ko juróom fukki jaam ñu koy jàppale ñu nawet nawet wàcc juróom fukki jaam yooyu kenn ku ne mu yen la seen dalak dugub nga yóbbu ca déwén sa mu abalaat ko yeneen juróom fukk muy muy téeméer bem di ñetti at fekk nag roi ki mintam mu ngi préparé préparé wu na boppam dal di dem ci seefañ jóge woon Mali ci xaasum xëy am fa juróom ñaari guerrier yu mag indi leen bi nawet wàccee yóbbootul lemp toog toog toog góor gi dégloo déglu ba ah waaw ah, kimintaa moom du ma indil sama impôt mu yónni genn góor ne ko demal waxal ma kimintaa ne ko kanaa du ma indil lemp bi wala mu jox la lemp bi nga indi bi góor gi ñëwee ne ko ah man sa wulli dee moo ma yónni nee naa ñëw laaj la lemp bi tax ba léegi yóbbuloo ko kimintaa dugg ci biir néeg bi génne ñaari leket benn bu def ko bal ba mu fees benn bu def ko doom ba mu fees ne ko yóbbul ko ko nekk lii mooy impom ren ah waa ji jël yóbbu ñëw ne ko ah kimintaan de mu ne lii mooy sa impom ren mu ne ko waaw mu ne mu woo nag wuude ba ko waxoon ne kii fi ngeen koy abal da xeex ngeen di mujjee mu ne ko ah gis nga li ma kimintaan indi ren imp mu ne ko waxoon naa la ko lii li muy tekki mooy ngeen di xeex mu ne ma xeex ak borom xaj yu bàyyi kii xajuma ci moom mu ne ah, ci la yónni juróom ñaari geer guerrier ne len dem len indi ma ci bi juróom ñaari geer yi dem ba ci dund fi kenn ki yek ci ko di seen tu dekk bi min tan naa len du nit jinne la fa ki min tan tok seen ko ci kaw garab min tan moy bour bi nga xamne da dan tok yónni bal dekk ak dëkk dama reyal ma diw bal bi dem ray ko kon ko xam nga intouchable ci la jël fetel bi ne ko demal daggal ma bangka bu rey waji de bankas bi mu ngëm branche bi mu ngëmee loxom tag ko mu daanu bal bi dem tag branche bi waji daanu mu ne lii nag kimintang moo ko def kon nañ depp ki suñu demé dañuy rey ki len depp na bur bi kooku nag kimintang ma won demb ak kimintang tay bi du ben mooy booba la tak xare dem bim takke xare dem dungu ci ne day daan dungu ci ci la ko xex ak muy ruwaayu ngulli bi xeex ak ñoom boobu mooy li mën la mën a wax màkk Koulibantang bi Koulibantang ba Fadia loolu yëpp ci wulli la woon ci la ko Kimintang nangu yóbbu ko ba ci faro bi ngay gis tey boo min nga jógee Koupentoum di dem Tamba ci pont Kousanaar bi fa la ñaan yem fa la ko wax ne nijaay mun a mun a ko ci xur bii la ñuy yem fii mooy suñu digaloo mag yow léegi lii jël naa ko ci wulli lii doon naa ko ci sama nijaay lii ma boole ko sama sama réewu baay ku am ndey am baay ku am baay am ndey kon lii nangu naa ko ci sama réew mi sama yaay bokk boole ko ci fii sama papa bokk moo waral tey mën nga wax mak Kolibantang wala Kolibantang mën nga leen wax waa wulli mais waa ñaani lañ kimintam moo leen delloo si ñaar xeex naa tubaab bi anglais yi xeex naa tubaab bi anglais xeexut ak français yi parce que français yi ñemewuñu woon a dugg. moom nan la faloo. moom ni mu faloo. kimintam bi mu demé ba nga xamné nguur mu ngi koy xëy mënatul xaar juróom benn magam ni ñi donnante munu ko xaar ah boobu roi maamati ma fa waye mam ah, roi bi fa nekkon mag boobu fa ka amoon problème parce que dafa daan won ci fas mu am problème tank tank yi dam euh, mu am problème xam nga bobu tan bu mag damé rek man na laago aussi mu seug encore ni koy waxe mu gumbu mais nag borom xam-xam la parce que bokkoon na ci buur yi ëpp xam-xam ci ñaan mais fi mu sëgg yëpp lu mu bugg dana ko def lu mu bugg yi dina ko xam-xam la am bi nga xamee ne moom Kuomintang mënatul xaar da nga xam ne ne nguur gi ñoom ñi donnante ko parce que nguuru donnante la te comme comme moom mooy septième am na six su nekk diggante moom nguur yi bu formé ben coup d'état Né woon naa la indi yoon na ay guerrier xaasunke juróom-ñaari guerrier yu mag nekkoon mande leen di xeex Té di ay guerrier mu ni leen pour mu régner ñoo jàppale ko ci régner ci la dem yónnee njàmbur ne juróom benn magam yoy. dama am gan yu jógee ci suñu mbokki Mali yi ñooñu ñëw daañu leen gane si bés tel bés da ngeen ñu galan boo jógee njàmbur di dem Mereto ci virage bi dégg boobu noonu ci sa loxo càmmooy déeg boobu noonu foofu la leen wax xaar leen ñu fa dañuy ñëw waaye yéen sama mag yi nag kenn ku ne na sol yére bu weex bu leen niroo la gars yi yéen rek sol leen yéen kese sol leen yére yu pour bu gars yi identifier leen bu ñëwee ñu xam ni ñu rey bu ñu ñëwee dajeeg ñoom foofu ñoom siis yëpp fa la leen ren bi mu de mooy buur bi couronné boppam ci la dawal fasam dem dugg ci néeg mag yi couronné boppam ne moom mooy mansa donta ci lañ ko wax donta mooy buur bi ñu tudd donn mansa donta mooy Kimintan Kamara ci la daw nag ñoom ñu ngi woon ak benn kufa ñu mën ko wax malet waaye kufa la kufa boobu nag benn bopp ninki nank moo ci ne ci la dem jël secret boobu yóbbaale ko ndungu si mais secret boobu ñoom garde nañ ko woon nag parce que xam nañ ne lii am na ku ko mën a moom seetal njaambur tey fi ñu toll mën nañ ne mën na am euh, junney at te kufa boobu te Kimintang fi muy ñëw ak fi njaambur sosoo lum néew néew ëpp ëpp na huit siècle donc nga xam ne secret nag yéen ko léegi la nit ñi ñemee sekk tekki secret nguur amatul secret mais nguur secret koy téye soo gisee tuuxi doon yu bari di ñu dal léegi ngay diggal parce que ñu war a falu ñoo war a falu ñu warta falu waruñu falu da ngay fal na ku warta falu wax ko secret mu génne ko secret buur buur dafay am secret moo daan téye nguur loo gis ci nguur yi nguur benn amul secret man secret mi daam bi mu génne ku fa boobu la ko yóbbaale dem falu couronné boppam royaume bi dem du musin waaye nag ku démocrate la ko ku pacifique la ku xarañoon la ku amoon xam-xam parce que li mu ko def def respecté na royaume njàmbur parce que njàmbur fa la soso mooy seen royaume bi njëkk ci ñaari fa la ñeen fukki buur ak ñeent soqee ko moo taxoon mu bàyyi justice bi nekk njàmbur lu mën a xew fukki penc yëpp dañuy dajee njàmbur fa lañ daan defee jugement yi day waree fasam nangu si ñëw njàmbur fa jugement bi mosu ko teel déplacé royaume bi la déplacé dem fee waaye moom ma nga fa mais jugement yëpp biir njàmbur la ko doon def nii la fal bi mu faloo nag ah am na ñu bari li ngi yuuxu waaye Lat Joor xam na Birane Cissé mi daan ànd ak moom xam na Birane Cissé moo daan jiite xare yi daan Lat Joor mos ta jiite xare yi ñoom ñaar ki ko wëy juum la Biral Cissé moo fi mas a ñëw te Biral Cissé benn dëkk la mas a lakk ci ñaar muy benn dëkk tukulóor mais ay soose fa nekkoon muy soose Cissé Koundaay muy fi ñuy wax tey ñu ngi koy waxee kaxaaw kaxaw te dalee na nax bi mu ñëwee kaxaaw moom Biral Cissé mi ngi ànd ak Lat Joor bi ñu ñëwee ñooñu ñëw kaxaaw ne dañu bëgg fuñ naa noppul dañuy dem Sàndugu fu ñuy wax Waliya mu ne Sénégal war ngeen a xam histoire ñaan bu baax mu ne leen nag damay dem Waliya ñu ne ko doo sant mu ne Cissé ñu ne ko ah ñun dee waa Cissé Kounda lañ ñun dee dañ lay teral buur bu sant Cissé bu ñëwee fi ñu teral buur bu sant Cissé bu ñëwee fi ñu teral ci lañ rey ci lay ci lay rey benn nit nag toggal ko ay ay mom mo xarem bi ñu añ ba suur lek ba suur naan ba man ci la nag Birane Cissé sene len ah mbu nguur de njàmbutee fi am te ñoo lak dëkk bi ñu dal di daanu ci dëkk ba lak ci la Cissé Kounda yi jógee dem sañ ci sisé Kounda gi ngay dëkk tay di boori Pacong sambu Pacong so say nak lool metti len ñu tok fa ñetti at be ci ñeenteeli at bi Bilal Cissé jaaraat fa bu ko dem sandu ni galan ko so see galan ko digganteem dexu dex gi leen fasi yi duñ naan dexu leebaa dal ci ko leen ray ray be mujju nga daan dem ci àll bi di taxani for jaam indi di dàqee so soo see dàqee Bilal Cissé Lat Joor mosul ñemee daal parce que ñaani ñoom bi ñu fi ñëwee ay yëmbaleen dàq jotuñu xeex si jotuñu xeex ay yëmbaleen dàq te may sa kimintaan tubaab yi mu xeexal ah firnde de bàyyi nañ ko fi waaye kimintaan day bi muy dal ñëw ñoom boo ñëwoon kuntuwaata da fa fekkoon seen benn mortier mu nga foofu beneen mortier bi mu ngi nekkoon ndungu si waaye yàlla baax na bu doon demoon nañ bi daañ xam kuy kimintan Sénégal xamuñ Kimintang ci la nangu dalee ko saame ba Pàncan bu mu xeexee tubaab bi anglais yi aussi daf leen dàqe ba biir Makaati Makaati île gars yi bi ñu jàllee nag comme que moom ay fas la war ñoom jàllale nañ kano yi jàllale nañ gaal yëpp yóbbu côté be ne comme que moom amul lu mu jàllee bu ñëwee ci tefet gi dina fa taxaw dootul mën a dugub bi Makaati ñun koy raw nañ waaye la ma leen waxoon Kimintang jinne la du nit bima ñëwé ba ci tefes bi dafa ré mu né ndax ndox ngelaw mën na man ndax ndox mën na téye ngelaw ñu né ko tété té la taxaw dal di wëllis ay gisit ñoo ñëw jallalé xarem bi yëpp xare bi nit ñi nit ñi yam nit ku ne gisit mo wala mom nga war nga jall ci jàll gi la wala day bu fekki bi fofu bir makati ta sa leen fofu ñu jall dem euh, sankule kunda bi mu leen kunda la taxaw mu ne góor de boo ko daqee ba mu jàll ñaari dex war nga koo bàyyi ci la waxee nag booba makaati la tudd waaye moom ko soppi ne janjanta mu tuddee kon li ma la mën a wax euh, ci histoire frontière frontière yi euh, voilà frontière yi ñaani ñaani ci dugg na biir Gàmbi mu yem ci dex gi dexu Gàmbi gi dalee ko saame xam nga Gambie am na ñaari fleuve fleuve bi nga xam ne ne moo traversé ñëw Sandu ñëw jeexee si Makacoulibantang boobu noor bi day xaw a dee am na beneen fleuve bi nga xam ne dafa dem Basse dem Fatoto dem Bulum mais dex bi nga xam ne nag bi nga bu bu Fatoto bi boobu Bayaayeen ñëw bi wàcc Saame demal la Banchan dem Makaati continué dem Kuntawu ñëw ay pàncan foofu la mooy fi ngay dégg ñaa nga bantax yi côté bii nii <clears throat> moom nangu na ci lu bari parce que saalum bi li ñuy wax saalum mais ñaari ma ngi dem ñu dégg naa ñu naan saaña mais man man ndax xel mën na jàpp ne mu ngi yemoon à ci Malem Hodar ci Carrefour bi fi goudron bi yemoon bu njëkk fi goudron bi njëkkoon a yem te 78 fañ jëlee goudron bi jëmee ko Tamba foofa ñaani fa la yem côté Jolof bi mu ngi dem dem na be ginnaaw Payaar ginnaaw Payaar côté bund bi mu dem ba Sinthiou Malem ginnaaw Sinthiou Malem dem ba Mayel Dibi côté yooyu nga xam ne euh, Bundu fu Bundu frontière ak Ñaañ fii Bundu la frontière ak fii mu frontière ak Wulli fii mu frontière ak Gàmbi Fuladu moom moo Gàmbi Fuladu géej géej gi moo la dex gi moo leen frontière fii mu frontière ci ak Kaffrine euh, côté Sagna fii mu frontière ci ak euh, Jolof ginnaaw Payar fi ñuy wax ay mburloon lii mën naa la ko taataaxal waaye